gars yi ma mbir mi jamono ji toll na foo xam ne ñoo dellu ginnaaw suba nag ci lënd gi moom incha allah li may ñaan mooy ñun ñëpp nañu mobiliser wu àndandoo def benn say ñu libéré Ousmane Sonko ndax feek ñu ngi toog di seetaan rek billahi dañ ko sàkkal pexe te ñu gis ku mel ni Juan Branco jógee am réewam ñëw ba fii ngir lan ngir dossier Ousmane Sonko bi kon ñun lu ëpp loolu ñun war nañu ko jaral Sonko waruñoo gën a gore te Sonko réew mi lay xeexal te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag ñun ñëpp dañoo war a mobiliser wu suba takku def benn say àndandoo libéré Ousmane Sonko jamono ji ma wax ak yéen Sonko ñun dong ko mën a libéré fi mu toll nii nag chaque jour ñu dégg ñu ne arrêté nañ diw arrêté nañ diw ba sànq ni rek ñi ngi gis ñu ne euh, FDS demoon nañ kër Ousmane Sonko ngir lan loolu dafa war a jeex fii ci senegal te ñun dong ñoo ko mën a jeexal faw nag suba incha allah ñun ñëpp ñu àndandoo wàcc ci terrain bi ndax baadoolo boo ko séqi moom dañuy xam ne baadoolo nga ko séqal te ñoom li ñu yéen li ñu yéen Ousmane Sonko du jàmm wolof Njaay dafay wax ne ku la yéene dee loo wopp mu xeeb ko te ñoom loolu la ñu yéen Ousmane Sonko léegi nag ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw ay ñun ñooy ndawi réew mi ñun ñoo mën a jóg taxaw temm ne loolu du fi am. ñun ñoo mën a jug taxaw temm sàmm Ousmane Sonko libéré Ousmane Sonko libéré Sénégal waaye feek ñu ngi toog di di ko xool fiñ ñu jaarale ñëpp lañ koy jaarale te loolu nag war nañ ko rus xeex ba xeex bi ñëw fii ñuy perte lépp loolu war nañ ko rus te nag di leen xamal ne lépp luñ ci bañ ñun bañ ñu ko si ñoo ngi leen di xaar incha allah di leen xamal ne gat sa gat sa rek. bu ba 2024 jërë ngin jëf.